sëriñ saalihu mbàkke sëriñ saalihu mbàkke mi ngi gane àdduna bisub àllarba fukki fan ak ñett ci weer wi di weeru digg ci atum 1333 ci gàddaay gi àllarba fukki fan ñett ci weer wi di weeru digg ci atum 1333 ci gàddaay gi ci dëkk bu sell boobu di njaareem dëppook mercredi 22 septembre 1915 mercredi 22 septembre 1915 sëriñ tuuba seex saalihu mbàkke doomu soxna faati jaxate la ak ku baax ki sëriñ tuuba xadim rasuul keroog bi mu feeñee jamono ci njaareem sëriñ tubaa seexul xaddiim sëriñ Mouhamadou jóob dagana la woolu ngir ni ko ci soxna faati jaxate ngir mu dem fa kooku feeñ jamono wutal ko aw tur sëriñ tubaa seexul xaddiim mi ngi doon wax sëriñ Mouhamadou Diop dagana bu demee mu tudde ko saalihu sëriñ Mouhamadou Diop dagana moo wutali woon aw tur kii di sëriñ tubaa seex saalihu mbàkke ba mu demee mu tuddee ko saalihu ginnaaw bi sax def na ak way ci feeñu jamono sëriñ tubaa seex saalihu mbàkke googu ñu teewlu way yi ci sëriñ Mouhamadou jóob dagana defoon ginnaaw bu mu wutalee sëriñ tubaa seex saalihu aw tur ba noppi بفضله صالحا باخ لنا جار به صالحا أبقاه صمصا في شمع دهره يدخل منه وجهه كالها أبقاه مكملا له هديه mubaarakan mustaxaxan saaliha sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke am nañu mbokkal kii soxna faati jaxate ñu ràññee ci sëriñ Abdul Quddus Mbacke ibnu soxna faat jaxate ibnu xaadim rasul soxna Tahiratu Mbacke bintu soxna faat jaxate bintu xaadim rasul ak sëriñ Abdul Baaxiyu Mbacke ibnu soxna faat jaxate ibnu xaadim rasul ak moom sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke ibnu soxna faat jaxate ibnu xaadim rasul kon ñaar ñu góor la bokkal waajur wu jigéen ak kenn ku jigéen ak moom muy ñeent bi wootee dal lii di alxuraanul karim waajuram sëriñ tuba seexul xaddiim moo ko laaj lu ci njaareem dalal ko lii di alxuraanul karim ci dëkk bu sell boobu di njaareem ginnaaw bi nag la woolu nijaayam sëriñ xamsatu jaxate jébbal ko kii di sëriñ tuba seex saalihu mbàkke ginnaaw bu mu ko waxee nag ay wax ci moom ci biir daara jooj nag am na ku ñu doon wax sëriñ alsaan jaxate moo jàngal kii di sëriñ tuba seex saalihu mbàkke alxuraanul karim ba mu bind lii di kaamil bi ci ginnaaw bu fi sëriñ tuba seexul xaddiim bàyyi Sering Serigne Sohé bu ak di Serigne Abdul Samad Mbacke nyom nyent ñooñu fekkante nañ ci daara Serigne Amsatu Jaxate jooju waye nak lata Serigne Touba Cheikh Saliou Mbake di bind Kamilam mok Serigne Sohé bu Mbacke fekk na Cheikh Abdul Ahad Mbake bindu Kamilam ba nopi waye seen nijaay di Serigne Amsatu Jaxate nak dafa téye won kaamilub Cheikh Abdul Ahad Mbake ngir bëgg nak bu ñaar ñi bindeeb kamil ba nopi mu fop ñetti Kamil yi jébbal ku baax ki Serigne Touba Cheikhul Khadim lata ñaar ñi di bindu kamil muy Serigne Touba Cheikh Saliou Mbake ak kii di Serigne Sohé bu woowee sëriñ Touba Seexul Xaddim génn lii di àdduna lool moo tax kaamilub Cheikh Abdoul Ahad Mbacke sëriñ Touba jotu ci waaye ginnaaw bu fi sëriñ Touba Seexul Xaddim bàyyikoo nag la sëriñ Amsatu Jaxate mi nekkoon seen nijaay fopp ñetti kaamil yooyu jébbal seen mag ja Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke kon kaamilub alxuraanub sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke Cheikh Modou Moustapha Mbacke lañ ko jébbal ci Tundóodi keroog bi sëriñ Amsatu Jaxate ñëwee ci Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ci Tundóodi dane ko kaamilub Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mi ngi nii bu sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke mi ngi nii ak kii di sëriñ Souhaïbou Mbàkke seen waajur xaadim rasool nag lii la ma santoon ci ñoom gisatuma seen waajur yooyu nag yow mii yaa fi seen waajur kon kat ñoom ñett ñii seen ñetti kaamil yaa ngi nii kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke jëlaat na kii di sëriñ tubaa cheikh saaliwu mbàkke wàcc ko ci daaray tundoo di jooju ci ku ñuy wax sëriñ ahmadu muxtaar jeng bu guyaar mu wéyal am njàngam moom sëriñ tubaa cheikh saaliwu mbàkke ci jëmm jooju sëriñ tubaa cheikh saaliwu mbàkke def na ab diir ci dëkk boobu di tundoo di ci loxoy sëriñ ahmadu muxtaar jeng bu guyaar ginnaaw bàyyiwaat ci loxoy sëriñ ahmadou muxtaar jëng bu guyaar jox ko sëriñ habibu mbàkke imaam ngir mu wéel am njàngam ci wàllu lii di xam-xam ginnaaw sëriñ habibu mbàkke imaam ci tuubaa yóbbuwaat nañ ko njaareem nag ci sëriñ muhammadu dem bu njaareem gën a wéyal nag lii di am njàngam ginnaaw sëriñ muhammadu dem bu njaareem itim sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke dem na ci ku ñuy wax sëriñ moor saasum jaxate sëriñ moor saasum jaxate mii nag moo nekkoon caatum bay xaali ma jaxate kala kon ci kii la sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke mujjee jànge mu del si waat tundoori nag ci loxoy mag magam cheikh mamadul moustapha mbàkke cheikh mamadul moustapha mbàkke moo ko jël fas yéene koo tarbiya ndax la waajuróom wax xaadim rasool kat defoon ci moom moomu mu fas yéene koo def ci ay rakkam cheikh mamadul moustapha jaarale ko fu ko wa jaarale woon muy tàmbalee sanc nag lii di ay dëkk ci atu la ko cheikh mamadul moustapha mbàkke jox ndigal mu dem sanc dëkk bu ñuy wax Lumbel Sayel ci atu boobu ba nëgën itam la sanc dëkk bu ñuy wax Gott Serigne Touba Cheikh Saliou ngangaan sanc na fu ñuy wax gelor mom Serigne Touba Cheikh Salihou mbàkke sanc na fu ñuy wax njenne sanc na ay daara itim ci dëkk bu ñuy wax Ngabu Serigne Touba Cheikh Salihou mbàkke sanc na fu ñuy wax ñaaru sanc na itim fu ñuy wax Daru Salam ba tay ci sancub Serigne Touba Cheikh Salihou mbàkke sanc na fu ñuy wax njàpp ndal ak xabbaan sanc na fu ñuy wax lagan sanc na itim fu ñuy wax ay daara ci dëkk bu ñuy wax njurul xel ko itam moko gor ci fukki daara ak juróom ci atu 1990 japp 1991 ci atu 1992 itim lañ sanc ci quartier bii di jannatul maxwa fa la hôpital bi gën a rëy ci Touba sax nekk lu ëpp itam ci ak njabootam itam ci gox boobu lañ dëkkee di jannatul maxwa sanc na itam beneen quartier ci Touba itam muy Touba njaareem moom lañ doon wooyee boroom mbuur moom sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke ak yeneen ak yeneeni dëkk yu sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke gor ay daara ndax ku lim li sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke def daa juum ci dëkk yooyu mu sancoon ci nekkinug Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke lépp lu fa masaa ñor nag kii di Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke la Touba Seex Saaliwu Mbàkke kat xam ne ne soxlawul dara te bis dana ñëw lépp lum soxla ñu saafaraal ko ko ndax kat ci loolu la ko magam ji Cheikh Modou Moustapha Mbàkke tàggat mu nekk nag ku Cheikh Modou Moustapha Mbàkke préparé ak mbooleem nag magam yi nga xam ne nii ñoom la nekkoon ci seenu xilaafa mu sax nag di liggéeyal mu Modou Moustapha Mbàkke jàppe ko comme xaadim rasul ba ci atu 1945 magam ja Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke génn lii di àdduna Sëriñ Touba Seex Saaliwu Mbàkke foobaat léppam jébbal ñaareelu xalifa waajuram di Cheikh Mamadou Fadal leeral mbàkke def ko sax nu raw ni mu defoon mu mamadul moustapha mbàkke ndax xam na ne kat bis dana ñëw ñépp yaakaar ko mu sax ci mu cheikh dul faadal mbàkke di ko liggéeyal jàppe ko itam comme xaadim rasul ba ne fi cheikh dul faadal mbàkke bàyyi ko ci atu 1968 mu jël léppam nag jox magam ji nga xam ne nii ñoo bokk benn maam muy njaxate te itam lu ëpp ci ak ndaw itam ñoo ko defandoo muy jàng alxuraan te ñoom ñetti tim la seen nijaay ja fobandoo seen ñetti kaamil yitandoo seen mag ja cheikh mamadul moustapha mbàkke te bari fa neen ginnaaw cheikh mamadul moustapha itam fuñ jaar àndandoo fa itam ci wàllum njàng waaye bi cheikh abdoulahat mbàkke toogee lii di xalifa général de mourides itam mu koy xoole nam doon xoole cheikh mamadul moustapha mbàkke cheikh lu mbàkke ba ci moom cheikh abdul ahad mbakke def ko ne waajur boole koog itam def ko mag di ko liggéeyal sëriñ tubaa cheikh saaliyu mbàkke soxlawul dara nammul dara ndax xam ne lépp lu mu soxla muridi saafaraal ko ko ci lool nag la sax ci ay ron magam ba ni fi sëriñ tuuba cheikh abdul ahad mbàkke bàyyi ko mu topp nag magam ja cheikh abdou xaadir mbàkke yàgguñu dara kii di cheikh abdou xaadir mbàkke génn àdduna sëriñ tuuba cheikh saaliyu mbàkke mi ngi toog xalifa général des mourides bisub dibéer fukki fan ak juróom ñaar ci weer wi di weeru korite ci atum 1410 ci gàddaay gi dibéer fukki fan juróom ñaar ci weer wi di weeru korite ci atum 1410 ci gàddaay gi 1990 dimanche fukki fan ak ñett ci mois de mai ci atum 1990 mu wuutu magam ja cheikh abdou xaadir mbàkke murit yépp nag di ko xoolee xaadim rasul mu tàmbalee liggéey nag moom sëriñ tubaa cheikh saalihu mbàkke ngir nag lu jariñ murit yépp mu jaar nag fa ay magam jaaroon fas yéenee taxawu nag lii di dëkk bu sell bi di tuubaa ci wàllu liggéey mu dolli nag lii di quartier yi tuubaa yi ba mu gën a bari ngir taalibey waajuramam yi mën a am lii di kër dëkk bu sell bi di tuubaa sëriñ benn kër rek la fi bàyyi woon am na sax ay ñenn ñenn ñu fi dëkkoon waaye daanaka rek mënoon nañ koo jàppe génn kër muy kër sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim gi kii di Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke bi mu fi nekkee dëkk bi kenn nattu ko daanaka daarul xuddoos rek moo ëppoon li muy dox ci ak nekkinam ndax sax booba mënoon nañuy wooyee daaru xuddoos lii di Tuubaa bi Cheikh Mamadul Faadal ñëwee nag la natt lii di dëkk bi di Tuubaa tàmbalee joxe nag lii di kër yi ku bëgg a dëkk ñëw dëkk ci atu 1958 ba atu 1968 Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke 20 000 parcelles la fi natt bi ko serigne touba cheikh abdul khan mbake wuto ci jalbi mom tim wéel na natt ngir muritu serigne touba cheikhul khadim man am li di keur mom 80000 parcelles la nattoon ci atu 1968 ba atu 1989 bi cheikh abdou khadir mbake toge ci jalbi bi yàggu fi dara ndax fukki weer ak ben yu tek ñaari fan rek la tok ci khilafa gi laataa muy tambali ab liggéeyam suñ borom jël nako serigne touba cheikh salihu mbake bi mu tok jalbi mom tim fa ay magam jaaron rek jaar na fa fas yéene yokku nag dëkk bu sel bi di touba ba muriti waajuram yi a am fuñ dëkk mu doole nag cent un mille parcelles ci atum 1990 ba 2007 cent un mille parcelles la sëriñ tubaa seex saaliyu mbàkke natt ngir séddale ko muritu sëriñ tubaa seexul xadiimi mu taxawu gone yi am ci ñoom yërmande ba tax na gone yépp nag suñ borom xiir leen ci sëriñ tubaa seex saaliyu mbàkke mu liggéey loo leen nag ci wàllu daayira lu jiitu nag sëriñ tubaa seex saaliyu mbàkke di toog xalifa général des mourides daayira am na waaye nii daayira yi baree ba xiir ko ci ndaw ñi ba ndaw bu ne taxawal li di daayira sëriñ tubaa seex saaliyu moo tax ndax ndax bëgg gum bëggoon gone yi ak yërëm gum yërëmoon gone yi ba tax na suñ boroom xiir gone yi ci kawam mu gën a ñoŋal nag dëkk bu sell bii di Touba ci titre foncier boo xam ni magam ja Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké bàyyi woon na ko fi ba Touba gën a dolleeku ci wàllu kaaraange lii di kaaraange itam dolliwaat na ko ndax bi fi Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad di nekk post poste gendarmerie bi rek la fi bàyyi woon waaye Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké moo fi indi nag lii di poste police bu jannatu bi ak yeneen ak yeneeni poste yu nekkoon ci dëkk bu sell bi di Touba lu mel ni garage yu ak feneen ak feneen ci Touba ba tey ci wàllu kaaraange Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke taxawal na génn kuréel gu tudd Safinatul Amaan ci njiitul jarbaatam boobu di Serigne Mouhamadou Lo moom soxna Mbeen Ngaabu ngir ñuy nag lii di war may Touba ndax lu ko jiitu kat kii di magam ja Cheikh Abdou Lahad Mbacke tere woon na ci dëkk bu sell bi lépp luy mbumbaay ak umbaay ak rumbaay loola itam Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke bi mu toogee na ko ngir di wax na itam war ma la joo xam ne ni war nañ koo jox ku baax ki Serigne Touba Cheikhul taxoon na mu taxawal daayira bii di Safinatul Amaan ci nekki na kanam ngir muy sàmm kaaraange lenn ci ñaaw téef yi murit yiy defante ci seen biir ci Touba wàllu wér-gu-yaram itam mu dolli ko sol ci aw dàllam bu fas yéenee dolli bërëb yi ñuy fajoo ci dëkk bu sell bi di Touba xam ngeen ne mu fi dul Mamadou Fadal di nekk benn post de santé rek moo fi nekkoon muy bi nekk ci Touba 28 ginnaaw poste de santé boobu bi Cheikh Abdou Lahad Mbacke toogee xalifa général des Mourides la ñu tabax hôpital Ndaamaatu ginnaaw Cheikh Abdou Lahad Mbacke nag hôpital Ndaamaatu boobu ak poste de santé Touba 28 bi rek ñoom ñoo fi nekkoon xanaa santé privée bi mu toogee xalifa général des mourides nag ci ndimbalul daayira biñ tudde Matlaboul Fawzeyni lañ tabax nag hôpital bi gën a rëy ci Touba muy mat la Matlaboul Fawzeyni mu nekk itam ci quartier bi nga xam ne ni moom moo ko gor muy Jannatul Mahwa ci quartier bii di Njaxaay itim Touba nekk itam ci Daaru Xuddoos tabax na fa itam beneen hôpital muy hôpital biñ duppee doomam ja Sëriñ Mbàkke Madina ak yeneen ak yeneen ni poste de santé yum tabax ci dëkk bi moom Sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbàkke Sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbàkke ci wàllu ndox itam xam ne waajuram wu tedd wa Sëriñ Touba seexul xaddim ci xasida googu mu bindoon ngir di ci aar tuuba muy madlabul fawzeyni doon na ca ñaanitim lii di ndox sëriñ tuuba seex saaliwu mbàkke dolli lii di forage wut na génn kuréel guy sàmm ndox mi mu tudde ko ay nu raxmati ci ak nekkinam ginnaaw bi lañ soppi tur wi tudde ko maawu raxmati mu fopp sëtam bii nga xam ne ni doomam moo ko meññi muy sëriñ Alioune Mbàkke ibnu seex dul Mustapha Mbàkke di sëriñ Cheikh Alioune jébbal ko ko wàllu njënd ak njaay yaxantu marché yi mu dolli ko a bi nekk nekk ci jannatul maxwa mu xam ne itam sëriñ tubaa seexul xaddim daana wax ne lépp lu waaye di def itam na nga ko def ci jumaam ji ak lii màggalam gi mu dooleel màggalu tuubaa ba ñëpp sawar cee ñëw mbooleem tarixa yi nga xam ne ni itam dañoo bokk ak ñoom lislaam bi teñ nekk ci réew mi ak bitim réew saa bu màggal jotee itam ñu màggal si mu wut nag daayira bu leen di sàmm way màggal si yooyu mu tudde ko raw du rawaayin jumaa ji mu yokk ci atum 1994 fob nag société bu tudd CDE jox ko lii di liggéeyu jumaa ji defaat ci yeneen karo yoo xam ne ni lu jamono ji tàng-tàng karo yi boo ci tegee sa tànk day mel ne glace muy liñ tudde woon marbu yi doomam ji di sëriñ Moustapha Saliou Mbacke moo jiite woon lii di liggéey bi waaye nag demoon nañ ba mujj gi ak réeroo am ci diggante sëriñ Moustapha Saliou ak société boobu di CDE ci yoon lañ mujj sëriñ Moustapha Saliou lim doon topp société bi moo jort na ne daal marbu yim ko jox bokku tëg nag yañ commandé woon muy original bi deuxième façon bi la liggéeyub sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke mujjul am kon jumaa ji ci diirub li ko sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke doon yokku ci wàllu marbu yi mujj ñu inigré jumaa ji ndax coow loolu ginnaaw marbu yooyu sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke laaloon na itam lii di cheikh ibrahima faal bi muy sooroor bu mag bi guddaayu sooroor bi sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke yokku ko fi lamp faal bi nekk muy fi ñu defoon làmp bu bleu bi loolu itam la yokkoon lu tolloog ñeenti mètre jàpp ñetti mètre ngir làmp bi gën a siggi sooroor yokku ko waaye fi lamp bi nekk rek la yokku ñeenti mètre guddaayu sooroor bi nag cheikh mamadul faadal mbàkke mi ngi ko bàyyi woon ci 86 mètre kon ba nëga ni boobu virgule bi moo fi nekk ba nëga war may dëkk bi itim ba tey ci kuréel googu sëriñ tubaa cheikh saaliyu mbàkke defoon ci jumaa ji taxawaloon na fa benn daayira nag buy sàmm war may jumaa ji ñu tuddee ko daayira muqaddimatul xidma ginnaaw yokkub jumaa yi 1994 boobu te mujjul am lii di sëriñ tubaa seex saaliyu mbàkke itam ci 2005 tàmbaliwaat ji muy fas yéenee lii di jumaa ji ak yokkaat lii di jullikaay bi miirewaat lii di jumaa ji xam ngeen ne jumaa ji bu njëkk amul lii di miir bu ko wër fu waay neex ngay jaar dugg ci jumaa ji waaye bi sëriñ tubaa seex saaliyu mbàkke di yokkaat jumaa ji nag ci 2005 lañ ko waale kon ci yokk boobu société bu tudd bawal construction lañ ko joxoon sëriñ seexuna mbàkke moom soxna maam faati mbàkke moom soxna maymunatu mbàkke laylatu xadar ak kii di sëriñ mustapha mbàkke fa Fàllilu lañ ko joxoon waaye laataa liggéey bi egg sëriñ Seexuna Mbàkke génn na àdduna sëriñ Tuubaa Seex Saalihu Mbàkke génn na adduna ba tey itam yokk boobu itam mujjul am inauguration liggéey boobu doomam jiitu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ibnu Cheikh dul Faadal Mbàkke bi mu toogee xalifa la ko eggale borom ma ja sëriñ Tuubaa Seex Saalihu Mbàkke nekk na ku kii maana ci biir murit yi lu waay wax mu ne unhu bëggul benn murit mere ko lu waay mu toog seetaan suñ ko waxee rek mu ne lu dul lislaam awuma yàq awuma tax na lu baree bari xew na ci yoon wi waaye ba tey kenn déggul kàddu sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke dem nañ ba ci wàllu politique ñu fab turam def ko ci liste bii di bu PDS ngir di wax ne moom mooy xëccoo dëkk bu sell bii di Tuubaa waaye ba nëgë ni rek kàddoom jugul ndax jort na ne su waxee am ñu ko mere bañ gu ko mere googu taxoon na lii di daayira Matlabul Fawzeyni ginnaaw buñ fa amee seen coow lu metti loolu bañ duma fi ay nit ngir daayira bi gaañ fi ay nit lu ne itam sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke na tekk heure bu ñu waxee rek mu ne su ngeen waxtaanee ba juboo rek lu ngeen wéyal daal maa nga ca dem nañ ba sous bi fi newoon di Bafodou kalu demoon na sax ba tëj kër sëriñ Touba gi nekk ci daaru Marnaan ngir di wax ne wàllu kaaraange lay sàmm waaye bu fiir rek sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke yëkkatiwu ci kàddoom ndax fam nekkoon rek la nekk lu dul lislaam amu ci yàq amu ci defar te lu ko jiitu nag sëriñ Touba Cheikhul Xadim dajale woon na mag ñi ci njaareem ngir di leen wax ne nañ ko moytu ci taalibeem yi taalibe yi itam nañ ko moytu ci mbokki boppam yi ndax amul lu dul ñoom ñaar ñooñu kon nag na kenn ku ne moytu sa moroom ca ka ca des loolu itam sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke déggewu ko woon nopp yi tëx ba tax na daana ko jëfe lu murid yi jotee jotee itam mu ne waxtaan leen ba juboo rek ndax su nee diw bàyyil diwkat loola sax mën naa nekk waaye bu ëllëgee nag suñu laajee kooko dana na sëriñ bi moo ma tax a bàyyi te loolu itam est-ce que arrangé na ko baax ki sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke jaa jëf borom yërmande ji ba tey yërmande jooju sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke amoon daayira bi ñu tudde isbu tarxiya ci atu 1998 amoon nañ fi coow ak lenn sëriñ Touba Seexul Xaddim coow loolu sëriñ Touba Seex Saaliwu Mbàkke yëkkati woon na ci kàddoom jaarale ko ci taalibeem bii di sëriñ Saaliwu Touré ngir mu wax ne daayira boobu jëf jooju mu jëf moom àndu ci te daayira bi bett na ko lool ci déclaration boobu sax demoon nañ ba tas ci daayira bii di Hizbut Tarqiyyah ci coow loolu ñu amoon na kii di sëriñ Moustapha Mbàkke moom Seex Saaliwu Mbàkke ay weer lañ ci teg daayira ba mujj nañ jéggulu ku baax ki sëriñ Touba Seex Saaliwu Mbàkke na leen jéggal ndax xam ne ne lépp njaboot gi la njaboot gi jamono ji ndax moom la ñuy xoole xaadim rasuul kon ba tey yërmande sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke mën nañ koo xam ci loolu mu yërmande googu mu amoon ci murid yi daana ko jëfe ci kaw murid yi ba tax na bu ëllëgee ku sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke yayool yay la ndax liggéey loo na murid yi ci côté bu ne mu gor nag lii di xel koom ci atum 1991 bépp bu doon wax ne bu ma fi fekkoon sëriñ tubaa seexul xaddiim bu ma liggéey loo ma liggéey mu liggéey loo la ngir bëgg rek murid yi woote ginnaaw bu murid yi demee ba dikk sant na leen gërëm leen lool di leen wax ne bi biñ am ci tool yi de moom jaaxal na ko lool waaye nag na murid yi góor góorlu ndax kat xam na ne moom moo leen doon liggéeyloo waaye nawet bi sax jot na nañ jéem a dem nag ci seen tool yi bopp yi bay ndax kat loolu rek moom mooy ndigal li sant na leen nag ba fu sant yem ñu teewlu kàddu yi Sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke yëkkati woon ci atum 1991 bi mu njëkkee yebal murid di xel koom ngir ñu dem gor yi la nga xam ne ni moom mooy tool ya maa ngi bokk ci lépp di leen siyaare day mbalu àq day mbalu àq maa ngi nii bëgg seel bi mbir yëpp ñoo sant sant yoon ba ne xanam gone te ak démb mais sant na ci lëj bi ñu leen doon lëjloo ci àll bay ci xel koom war koo gor war koo setal yooyu bu ñu ñu si war koy wàññi nii lëj yi ñu dafa ëpp lëj yi même at setal bi ëpp na même at bay ko it ëpp na même at mu ci def nag ren doy naa def ñu jël métti gën a jafe lépp def na mu ci def nag te mën a fexe ba seetali ji lu ma sa lëj yi bu soobee yàlla te nag ñu dem ci seen tool yi bopp yi ndax seen tool yi wutu ak sama tool bi si man dara kon nag bu ñu ko gan koor ñu dem nag dem def dem ci seen tool yi bopp yi 本部設計、二番川で入り口です。 ma a mu ne a sant bu baax a baax kon kàddu yooyu la Sëriñ Tuubaa Cheikh Saliou Mbacke yëkkati woon ci atum 1991 muy bi njëkkee soññee lii di xel koom ca la li kàddu yi nag ma ngay sant bu baax a baax lii di nguurug Sénégal nee na suuf soos kat bu ci jotee ñoom ñoo tax mu jot ci kon nag mi ngi leen di sant ci cofeel géeg bëgg googu nguurug Sénégal am yéene jox ko suuf si ci at mi ko jiitu di atu 1990 ci la Sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke toog xalifa ci ñeenti weer yu jiitu ak xilaafaam ci juróomeelu weer ba nag ci la njëkk a organiser màggalu Tuubaa muy 18 safar mu tombee woon nag fukki fan ci mois de septembre nekkoon altine ci atu 1990 së ca cérémonie officielle lu màggal googu sëriñ tubaa seex saalihu mbàkke ginnaaw bu mu saafonteeg muri di ñaanal leen ma ngi leen di delloo ci suñ borom di leen xamal ne suñ borom tabaaraka wa taala képp ku ko fàtte ku ne yërmande gim am ci jaamam moom moo tax te suñ borom tabaaraka wa taala képp kum fàttali too tal lu dul moom mi ngi ñaan suñ borom nag yërmande ak njëggalam di ko ñaan na xéewal mu am mu sotti ko ci askan wi ma ngi koy ñaan itam ak jaamu yàlla gu ñu nangu ay xéewal itam na ko sotti ci askan wi mbooleem jullit yi li xasit de gogu muy waja jang muy rabbi bi kon ñu tewlu kaddu yi serigne touba cheikh saaliwu mbak njëkk yëkkati ci touba di cérémonie officielle di màggal gi mu njëkk organiser ci khilafam yàlla ko rek te ku ko fatte rek yermane ma tax yermane ma tax ku ak jaamu yàlla. ak jaamu yàlla. yàlla na yàlla xéewal. yàlla na yàlla xéewal. yàlla na dimbale. yàlla na jëriñ. yàlla na jëriñ. ndimbal lu nu matale ñun ñëpp. ndimbal lu nu matale ñun ñëpp. ci barkeb xasida ak sëñ Tuubaa ji may jàng. ci barkeb xasida ak sëñ Tuubaa ji may jàng. rabbi bi maa yashraful azaan qad fajaa bi jaahi afdali man lillahi qad rajaa indi rabbin karim laa sharika lahu sabriya yawman nuran saatian malaa محمد صلوات الله في أبد عليه باسمه كله قرأ أدعو إله التي أمت مواهبه سمية الخلق ما يختار من برأ أشهده جل أعضاء وكرما من يتكلم هادئ وكل من لغة بريئة رحمن حب لجميع الخلق رحمة من يثني أن الشر من قرآنه قرأ خذ أمة المسرى عن كل مبصرة وترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل أنت من جميع الورى nga xam jamee alwara di rada ya malik mulk ya man jalla an kawrin nga xam jamee alwara ya di rada ahwata ma qadra ahwata min qadarin ya al-ghani wa lillahi qadra ja'a subhaana rabbika xasida googu nag di rabbi bi maa yasrawu bi sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke di doog a toog xalifa général des mourides xasida googu itam bokkoon na ci xasida gi ko doon dimbali ci ab liggéeyam ñii di mool ay xasida rawatina ñu koy wecceeku duñ ma ne mukk Abdourahmane juum na ndax kat ci xilaaf ak sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke xasida gi bokk na ci li ëppoon luñ daa wecceeku ci askan wi ndax moo daa jàppale sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke ci xilaafaam daana ko jàng lu bare bari ci nekkinam kon jërëjëf sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke ba ci kàdduy sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke am na bis ci njaareem ginnaaw bu mu fa demoon ci am ngan daayira bii di is bu tarxiya ñëwoon def ci ab ziyaar ci moom bisub keroog ginnaaw bu daayira is bu tarxiya jàngee lii di xasida yi ba noppi sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke ñaanal na leen wax ne kat passif boobu ñu àndal ci njàngum xasida yi moom yéem na ko mi ngi ñaan nag daje ceeg taw féexi ku baax ki sëriñ Touba Cheikhul Xadim ak yërmandey suñ boroom doon na leen fàttali waale leen ne am na benn bis benn waay ñëw ci moom di ko wax ne jàngkati xasida yi de dañuy yàq rek lii di njàngum xasida yi ndax mooy bi kat rawatina ci fu leen neex lañ koy tàmbalee ci am njàng sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke nee nag bisub kero ma ngay wax waaja di ko wax ne lii di xasida yi sëriñ tubaa seexul xaddiim de fépp fuñ koy jànge kenn du fa yàqoo ma ngay wax ne sëriñ tubaa seexul xaddiim mas na wax ne bu fekkoon na xasida yi de ak njanaaw la muy am picc la jàngkat yi ñoom ñooy laaf yi ñiy déglu nag ñoom ñooy dunq yi kon nag képp kuy jàng doo nekk fu ñuy yàqoo kon jànkatu xasida yi nag war nañoo góor góorlu ci kàddu yooyu sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke yëkkati woon ngir jagleel leen ko ñu teewlu kàddu yi sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke yëkkati woon ci njaareem ci bisu samedi fukki fan ak juróom ñett ci mois de octobre ci atum 1997 teer bi dañ xas yi dañ koy yàq ci réew mi rek mooy bi dañ koy yàq rek dañ koy yàq rek mooy fu ñu koy yàqee te du fa yàqu te sëriñ yi bu dee ñanaaw. Ah. jàngkat yi ñooy laaf yi déglu ko yi ñooy ñooy dong yi. ndox ñooñu ñëpp dañu ci fekk. amiin ak nag yi sëñ Tuubaa bi ñenn. amiin di seet koog noonu. gërëm leen jooju mu amoon ci mbooleem jullit yi rawatina murit yim séexal sëriñ tubaa seexul xaddim ay magam itam noonu leen bëggee woon te ay magam noonu lañ ko bëggee woon ak lii di ay rakkam ba tax na ay turandoo am na ko ci ëtëb njabootu sëriñ tubaa seexul xaddim bi ndax cheikh mamadou moustapha mbàkke tudde na ko doom muy sëriñ saaliyu mbàkke ambassadeur doomu cheikh mamadou moustapha la sëriñ tubaa Cheikh Saliou Mbacke la ko tudde Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke tudde na ko doom Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke tudde na ko doom Serigne Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacke tudde na ko doom Cheikh Sohibou Mbacke tudde na ko doom Serigne Mourtada Mbacke tudde na ko doom mag ñi toppoon Serigne Touba Cheikhul Khadim ñu ci bari itam tudde nañ doom kii di Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke ngirug jikkoom taalibe yi itam kenn demul ñu des ndax saaliw yu góor yi ak saaliw yu jigéen yi bari na lool ci askan wi ngir bëgg guñ Saliou Mbacke yërmande jooju mu amoon ci yoon wi noonu itam ni li leen daan nemmeekoo moom Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke ngay taalibee wala ngay kilifa néew na lool nga ziyaare ko ba dem te Serigne tubaa Cheikh Saliou Mbacke dolli wu la wala mu xamal la loo xamul woon kilifa yu baree bare itam ziyaare nañ ko ba dem mu ne leen bu leen fii géej ndax dama leen di bége ku daan nemmeeku ni yoon wiy doxe la moom Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke nemmeeku googu mu daan nemmeeku ni yoon wiy doxe laata muy toog général des Mourides dem na itam ci réew mii di Gambie ak Côte d'Ivoire taalibe ya fa nekk yërmande jooju mu amoon ci askan wi rawatina ci taalibe yi muriti sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim yiñ ko dénk ci atum 2005 lii di commune rurale bu Tuubaa ñëwoon na doon ko ziyaare si ngir di ko wan si nag liggéey bi ñu tàmbali ginnaaw bu sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke rafetloo ñëw googu commune rurale bu Tuubaa ñëw ci moom mu leen doon xamal ne lii ñuy liggéey de moom moo leen koy liggéeyloo moom nag moo waroon a waru fasam dugg kër yi kër gu ne mu wax leen lam war a def ci dëkk bi waaye comme am nañu ko defal nag sant la nuyoo nag la leen def bu sedd xolam ndax ginnaw bu mu leen nuyo assalamu alaykum ba nopi mi ngi leen di bege la wax ndax serigne touba cheikh saliou mbake ku da wax baat bobu la muy ma ngi leen di bege ginnaw bu mu bege mouride ba nopi nak mi ngi wax sax li di commune rurale bu touba ne fan yi passé sax amna ñu ñew ci mom di jambat ne dekk bi dal bari na ay teef wala yenn ci ay ñaaka worma yuñ fi def yo xamne mi mingoo wut ak dekk bi serigne touba cheikh saliou mbake ma ngay wax kérok ci yermande gum am ci mouride ngir bañ ben murid mer muy wax ne de dekk bi di touba di kep ku fi jox nga ko worma manam la ngay def mu nek lu ñàkk a warmaab dëkk bi sa ñàkk xam rek la waye bis boko xamone dang ko bax muy xam leen nga doon wax ñoñu fekk si na leen ci wax je bisub keroog mom mi ngi wax ne lepp lu wër cornus bi nañ ko fi bayyi ndax cheikh mamadou mustapha mbacke kuko fonkon la ta ar ko cheikh mamadou fadal naka noonu cheikh lahad ba ci cheikh abdou khadir mbacke moom itam bi mu ñëwee loola rek lay wéyal moy ndigalul magam yoyu neena na cheikh mamadou fadal mbacke sax waxon na ne kep ko xamni ni dal da ngay def ay rumbay ak bumbay ngal la way ba fi li wër bir cornus bi da nga dem ba ci ci arrondissement ndaam nga organiser fa saw xew moom itam loola rek lay feddali nee na nag kàddu yi mu yëkkati woon am na nag ñeneen ñu ko dégge woon baneen waxeen bu bokkut ak moom bi mu koy waxee waaye lii rek la ci jublu woon ngir ñu wormaal ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim sëriñ tubaa seex saaliyu mbàkke ma ngi cay dolli nag di wax ne am na ñoo xam ne nañ dégge wax ji moom wute naag lool lam bëggoon na wax ñenn ñi nag dañoo jort ne moom daa tere lu kenn daawul tere waaye muy wax ne moom lim da ko fi daa tere moom du xatal kenn du bundu xatal kenn nee na ànd naag sëriñ touba ji waye dal bu kenn jor ne dalay bundu khatal wala dalay fitnal ma ngay wax ne am bi bis touba cheikhul khadim di wax ne fat-fat de wut ak mbam ak nopam neena lolou mo wax ju yàqu ju olof njay da wax waaye mbaam jéemuta dindi nop ya li ci bir nop ya te duggu ci te dëkku ci la beug genné lolou motax muy fat-fati muy xamal mouride nak ne limi téré tere léeg-léeg rek mo waral yenn kaddu yi waye ñu xam manam maanaam jubluwu ko ci kon lolou dafa bokul ci yoon wi wala dafa bukul ci santane suñu borom motax rek mu bëgg murid yi bako loolu rek la jublu won ci cadeau yi fat fat tàggali wut mbam ak nopam mu indi na cadeau yi serigne touba yëkëti won ngir jagleel ko ñenn ci mag ñim doon waxtaanal nee lim fi téré rek dafa fekkon ñu di fi téré jaay jëf jaay jëf borom yërmande ji ñu teewlu kàddu yim yëkkati woon keroog oh, ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen bu baax itam te di leen sant bu baax itam nee na am na sax lu mu waxoon. loo xam ne lu doon soññi boobu. nee na booba da da doon soññee rek. ñu bàyyi di ma ko tawat ne dafa am ci dëkk bi. nee na booba dañ dañ ñu dañ ko doon tawat di dafa am ci dëkk bi. léegi ñi ko doon wax yéen wuñ ko dëkk bi. ña ko doon wax it la ñu gis yëlale wuñ ko dëkk bi. yoo xam ne lu waay def. Hmm. koo xamul wala sa xel cee maa da nga ko fàtte. amul kenn ku ñu ko jiw. waaw nag xam na lépp lu waay def ci dëkk bi dafa fekk sa sam xel ci demut wala da nga koo xamul waaye kenn ku jublu def lu yëllawut ak dëkk bi amul. wax ma dama fa jëy jëy wax ji. nee na mu fekk leen ca ak wax ji. waaw ñaar maa ngi bëgg rek. li ñu tuddee kur nii. bu koy góor kenn def. bu kenn def ndaje bu ñu jàng wax ci bu jiitu nee na woon. lii nga xamante ne maanaam mooy corniche bi wër. kenn bu mu ci def lu dul jàngum xasida. loolu itam ñëpp déggoon na ko. te loolu nee na loolu ñëpp déggoon nañu ko. waaw ma fi aar ko ñoo fi jiitu woon. waaw ñi ko fi jiitu woon ñëpp aaroon nañ li corniche bi wër jumaa ji. sëñ Joon mi fa sancoon. sanc boobu ci ci mu fi tegoon mu fi waaw kay li nga wax ndaam mooy daje bu kaay suñ Fallou dafay dafa waxoon ne lépp lu ñuy daje nañ ko daje foofu ci arrondissement Ndaam. suñu sëñ Abdoulaye daa wax. suñu Abdoulaye loolu la waxoon. loolu rek laa doon wax. nee loolu rek la doon wax. jërëjëf. lu daj murid yëpp. lu daj murid yëpp. ñu ko du ma ko santaane ci a lu daj murit yëpp moom mënu koo santaane ci lu dul waxtoom ko war a waxe waaye lii mu doon wax nag Touba gi la ci jublu woon te weesuwu doon loolu war maa Serigne Touba rek am na ñu ko ay dégg-dégg hmm. lu mu dégg lu jàpp ne sama caam bi hmm. ma tey si day tere nee na nag am na ñoo xamante ni maanaam na ñuy déggee wax ji da dafa mel ni bokkut ak noona ndax dafa mel ni maanaam dañoo jàpp ni dafa am lu muy tere lu mu daawul tere wala mu am lu mu digle lu mu daawul digle. te loolu amu ci. te loolu amu ci. la sëñ Tuba waxoon. la sëñ Tuba waxoon rek. nii. nii dafa wax ne. wolof dañoo wax ne mbaam pot pot dañoo wax ne. pot pot ba dox càggal bi mbaam ak nopp bi. Hmm. dafa am loolu. waaw nee na wolof dafa wax ni. Euh, maanaam fot fot tàggaliwul mbaam ak nopp ya. loolu wax ju yàqu la. waaye nee na loolu wax ju yàqu la. fot fot jamuy def. Hmm. tàggu nopp yi taxul. bëgg a tàggoo ko noppam taxul. leneen ca nopp yi te dëkku ca. looloo ko tax di fat fat. loolu waxi sëñ Tuubaa la. waaw moo tax muy wax lu ci jëm. waaw jërëjëf. dara day loo xam xatal taalibe yi wala xatal jullit yi. Mhm. wala xatal addina bi. nee na tëriwul dara loo xam ne day xatal taalibe yi mbaa muy xatal jullit yi mbaa muy xatal addina amoon ci jullit yi ak taalibe yi ba di ko doxal ak di ko wane saa su ne ci ay kàddoom ndax balaa kàddoom a jeex rongoo ñoom tuur ngir bëgg gum bëgg murid yi ma ngay wii ci wax jooju di wax ne am na benn bis mu dajale lii di sëtami ak doomam yi jiital bi ko Serigne Touba jiital ci kaw murid yi loola fas yéenee ànd ak doomam yooyu ak sëtam yi mu leen di xamal na jiital googu ñu ko jiital dafa fas yéenee ànd ak ñoom bis bu leen jiitoo nag taxaw xaar leen bis buñ ko jiitoo itam mu fas yéenee daw dab leen bu demee ba gisu leen itam dana taxaw xaar leen bañ ñëw waaye fas yéenee wut a dem menn moom dong nag ngir ba ñim séqal sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ñu lu kàddu yi sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke yëkkati te kàddu yi keroog ba mu koy yëkkati laata kàddoom di daanu rongo ñam tuuru na lam waxoon ni leen. ni leen. li ma sëñ Touba jiital ci yéen. li ma sëñ Touba jiital ci yéen. ma koy ànd ak yéen. dama koy ànd ak yéen rek. ci kaw. ci kaw. ñu ji ñu jiital moo ma jiital. ci kaw jiital gi ko jiital. ngeen topp ma. ngeen topp ma. a jeex rek. bu ma jiitoo. dama leen di jeex rek. di leen geesu rek. bu ma leen séenu taxaw nag leen. bu ma leen séenu di taxaw nag leen rek. mu seen seen gisuma mu dëpp daje yéen. bu ma geesoo gisuma leen it dinaa dëpp daje daje ak yéen. topp yéen. waaye kon kon kon bu ma daje ba jotee damay dëpp bu ngeen topp ci yéen. waaye bu ngeen dëppee damay wàññi ko wàññi topp ci yéen rek. waaye duñ tàggoo. waaye du tàggoo mukk. loolu mu yàq loolu aadama yi mu mu jiitoo loolu maa mu yàq taay maa mu yàq addina waaye man de bu ngeen ma jiitalee dara lu yàq diine mbaa mu yàq taalibe mbaa mu yàq addina du ma ko def mukk waaye waaye may doxit nag di geesu waaye bu may doxit di leen rek bu ma leen gisut it nag leen rek bu ma seet séenu seen gisuma leen ma ma ma wàññi ko ma wàññi ko wut si leen. bu ngeen moo fekkee ngeen dem nag dama leen di jiital topp ci yéen. waaye duñ tàggoo mukk. lépp ñun ñii ñëpp nag tàbbi nañu ci biir loolu. nee na du fekk lu yàlla yaatal mu xatal ko. yàq ma li yàq ak ma yàq diine. wala diine du ko def. diine ji man. du jóge ci moom. ànd naa ñëpp. ànd naa ñëpp. kon jërëjëf bàyyi soxna waalo ba tey ci kàddu yi Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke yii kàddu nag la mujjee yëkkati ci ab discours bu mu def jagleel ko mbooleem muritu Serigne Touba Cheikhul Khadim yi nga xam ne nii dénkoon nañ ko ko ci atum 2007 at la ko def ci bisu korite bi mujj ci ak xilaafaam mi ngi dëppoo woon ak benn fanu korite ci atu 1428 ci gàddaay gi dëppoo woon ak muy 13 octobre 2007 sëriñ Tuuba Seex wu Mbàkke ci déclaration bi mujjee def ginnaaw bu nuyoo ci assalaamu aleykum nee na mi ngi nuyu moroomu jaamam yi muy ñim bokkat lislaam bi di nuyu itam mbokki taalibey boppam yi mu ñim séqal xaadimu rasuul ma ngay wax ne mi ngi fàttali boppam di fàttali moroomu jaamam yi muy ñim séqal lislaam bi ak mbokki mu séqal xaadim rasul ci li ñu fi indi muy jaamu suñu boroom nee moom mi ngi tuub di tuubaale mboolee mbokki taalibe mi di ñaanitim ci xéewalu suñu boroom yi mu ne suñu boroom da ko fee def ngir jagleel ko mbooleem jaamam yépp amu ci xajji ak seen moom kay li muy sàkku mooy ñu laaj ko ko bu buñ ko ko laajee mu joxe ko kon nag amul benn jaamu suñu boroom bu gën a foor laaj ko ci xéewalam yi mu jox ñu ko nee na xéewal yooyu nag mu ngi koy laaj suñu boroom di ko laajaale nag mbooleem mbokki taalibe yi nañu gën a farlu nag ci jaamu ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ndax kat loolu dong nag lañu fi suñ borom wàccee ngir ñu jaamu ko mu ne nag ñu xam ne nii jamono ji jamonoy asakay mbay la muy bay mi noppi na nag nañ génne lii di asaka bi te itam na ñu gën a farlu nag ci fonk suñu boroom ngir fonk nag julli juróomi dem màkk ci ku ko man lool itam mi ngi koy fàttali murid yi ngir ñu def ko mu ne nag ñu jéggluwaat suñu boroom bu baax a baax a baax jégglu itam nag suñ moroom yi muy àq yi ñuy séqante ñun ci suñu biir kenn ku nag la nga sa bopp nga yéene ak sa bop nga tàmbalikoo ak sa morom kuko ko def nak jamm rek mochi ci ñëk mo ci muju serigne touba cheikh saliou mbacke mi ngi wax ni mi ngi jéglu nak bëpp ñaaw téef boo ni nit da koy def ngir top bakkanam mu ne nak juru tudd ben ñaaw téef ndax kat suñ borom bu fekke day tudd say ñaaw mom da la bëgg jéggal waye bu fekke sa moroomub jamm kese la nak buy tudd say ñaaw da la bëgg wër kon nak jërut nak ñuy tudd ay ñaaw téef béppum ñaaw téef boo top nafsu dong la nañ ko a te suñ borom jéggal ñuko ko kon yi kaddu la tàggutoo murid yi yi ci korite gi mujjee fekkee bi biñ ci tegee ñaari weer yu teg ay fan la génn àdduna moom Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke ci juróom-ñeent fukki atam ak ñaar ñu teewlu kàddu yi mujjee yëkkati ci discours am jagleel ko murid yi ak taalibe yi. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa maa ngi nuyu sama mbooloo mi jaam yëpp ñu bokk ci yi maa ngi nuyu sama mbooloo mi taalibe yëpp ñu taalibe yi muur yi maa ngi fàttali sama bopp di fàttali ñu ngi fi andi li ñu fi bàyyi sama borom ñu fi gànnaaw bi maa ngi tuub di tuub tuub tuub bi sama borom jaam yëpp maa ngi sàkku ndimbal ak xéwal ko jaam yëpp amul soxla tab bi jeexee ko laaj yàlla ñu ko jaay a lu gën a kawe laaj ko ak sant ko daa ko ñu mu sant ko jaamu ko maa ngi sant sant boo yàlla sama borom di ko jéglu sama borom xewale yi nga xam ne moo moo moo ko jaagale boo fi di digg ko laaj tam bu lu jeexee te bëgg tam bu lu jeexee te bëgg ko laaj mu koy laaj mu ceeg njëriñ ak yokk dimbali dimbali suñu diine lislaam yi fekkoon seen ndimbal ma ngi fàttali waxtu yi ma ngi ciy وقائد الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والوقاية والخائفين في yëpp da nga koy wax ne dafay def nag bu baax a baax nag ndax dañu bañ góorgóorlu ko faral ko mën ñu ngi koy góorgóorlu yëg yu baax yi yëg yëg leen di suñu borom yëg leen ko sa borom da nga bëgg ko jëfante yow ku ñu gën a seetla yooyu ñoom ñu gën koo la nga yeewoo. sa sa bi nekk si kàl aadaaba ak taay ba nii ak saaba. da ngay seet la la war. gën koo seet la war ci yow. mooy at yi nga xam ne itam bu nas yi yëpp moom bu nas yi yëpp moom la war a ay waaye. sa morom bu gis sa yëpp dara bu gis sa yëpp dara ma fekk ba pare ñëpp jégalu suñu borom. kon yooyu kàddu la sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke mujjee yëkkati ci nekkinam wala ci déclaration boo xam ne nii soxal na mboolem murid yi ba tey ci liggéeyub sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke lii di camp sapeur pompier bu Touba ci xilaafaam la fi ñëwee lii di service d'hygiène bu Touba itam ci xilaafaam la fi ñëwee ñaari hôpital ginnaaw bu ndaamaato itam ci xilaafaam la amee muy hôpital Matlaboul Fawzeyni ak hôpital bi nga xam ne nii moom mooy hôpital bi ñu duppee sëriñ Mbacke Madina lii di kër sëriñ Touba itam bàyyi na ko ci ñaar fukki kër ak juróom ñett Touba itam ci xilaafaam la ñëwee sëriñ Habibu Mbàkke imaam itam moo ko defoon imaamu jumaay Touba bi fi sëriñ Habibu Mbàkke bàyyi ko ci atum 1993 itam sëriñ Maamun Buso itam moo ko def imaamu Touba lii di police bu jannatul maxwaa itam ci faam la fi ñëwee bim ñuy dëddu bàyyi nañu fukki milliards ak benn ngir yeesalaat Touba moo xam ci côté bu ne lamp godronge ngir murid yi man di jaabande ci dëkk bi saa bu leen neexee te duñu am benn jafe-jafe ka yërëmoon murid yi yërmande sëriñ alxamis jujot wala ajjuma jujot mu wàccilu li di ay kamil li di jakkay ak jumaa yi boole koog nag di xelu ngir ben mourid wala ben julit baña am ben jafé jafé ci àddunaam kiñ doon woyé borom ndoka borom mbour borom kom ak borom jannatul mahwa serigne touba cheikh saliou mbàkke lu kenn mustakhlat ci mom mujju am muy deuduñu ki mujjoon ci doomu serigne touba cheikhul khadimi ci bis bu mu waxon na buñ xeyé nañ jang li di alxuraanul karim ñepp xey yew yegna ku bax ki serigne touba cheikh saliou mbàkke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 2007 jeudi 27 décembre 2007 bi set di ajjuma 28 décembre 2007 ñëpp yëg ne sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke dem na sëriñ Muntaxa Mbacke moom Cheikh Mamadul Bachir Mbacke moo ko taxaw moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci penku jumaa ji doomu soxna Fat Jaxate ak sëriñ Touba Seexul Xaddiim ci juróom ñeen fukki atam ak ñaar lañu dëddoo ki desoon ci doomu sëriñ Touba Seexul Xaddiim yi ki mujjoon ci njabootu ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim boroom yërmande ji ka sëriñ Muhammadu bakkan wutali woon lii di aw tur ci njaareem ay xalifaam nag ñii la tëddee ci le 28 décembre ba nëga ni sam duppee waajuramam wa di sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moo ko wuutu muy sëriñ Cheikh moom sëriñ Saaliwu Mbàkke ñu koy ñaanal suñ borom guddal aw fanam te yàggal taxawaayam ci njabootu sëriñ Tuubaa Cheikh Saaliwu Mbàkke te ba fi ay rakkam moo xam yu góor yi ak yu jigéen yi te ndonal sëriñ Tuubaa Cheikh Saaliwu Mbàkke itam yàlla na yàgg ci seen loxo ak barke ba sëriñ Tuubaa Cheikh Saaliwu Mbàkke lii ñu tuddee ak màggal amugul nag bis buñ koy fàttaliku ci lii di ak njabootam waaye waaye am na ay bis yoo xam ne taalibe yi ak sopp yi ñoo ko jagleel muy liñ tudd sant sëriñ Tuubaa Seex yu Mbàkke yi ñuy ñaan ci doomu soxna Faat Jaxate ba ak ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ki amoon yërmande ci taalibe yi yàlla na ko suñ boroom fay te yokk ay leeram te wanale koog waajuróom wa Xaadim Rasuul amiin